tey ñoom ñoo yor le conseil d'administration de l'hôpital ana subvention yi qu'est-ce qu'ils sont en train d'en tey bu ñu demee ba hôpital euh, médecin yi lay faj amuñu gant bu ñu soxlaa def yenn chirurgie ils sont obligés de t'amener à Sédhiou ou ailleurs mm-hmm. bu ñu soxlaa ça pour euh, anesthésier nit pour def une intervention sur toi c'est un problème boo demee euh, ci laboratoire yi y a toujours di ruptures ci li ñuy naan des des des des réactifs pour certaines analyses boo demee radiologie y en a pas pour faire des échographies pour les femmes. am na jamono seen problème scanner la woon mais boobu c'est c'est maintenant derrière vous. nee naa euh, bi bëri na li ci nekk mais dañuy xëy xool bu ci gën a am solo. Mm-hmm. ngeen porté combat bi. gars ci rek ne fu mu nekk nii amatoo leen benn problème. tey Kolda lépp feebar ñu ngi wax waxu hôpital régional. Mm-hmm. mbaa nit ñi ñu ngi bàyyi xel centre de santé bi wala centre de santé yi laay wax au niveau départemental au niveau régional. Mm-hmm. est-ce que ñu ngi koy bàyyi xel. les centres de santé ne sont pas fonctionnels amuñu matériel mhm. amuñu médecins yu suffisant tey personnel yi fay jël engagement di fa liggéey la plupart qui sont des volontaires mais la plupart ne sont pas payés ou en tout cas tardent à être payés voici de vrais problèmes yi nga xamante ni tey population yi ñu ngi koy jànkonteel. yaa ngi wax le président du conseil départemental mais les autorités en charge de la santé parce que aussi est-ce que euh, nga xam ne mooy président conseil départemental est-ce que ko. ça aurait été un responsable euh, simple mm -hmm. qui avait juste la compétence yoroon compétence su département bi kese boole wuñ ko ci cappaandaw la fu ñuy décider du ma doon indexer leur responsabilité mm -hmm. tey le conseil départemental moo yor nee naa la la présidence du conseil et euh, du, du conseil d'administration de l'hôpital régional mhm. ñoom ñoo ko assuré tey dama laaj solennellement qu'on audite le fonctionnement de l'hôpital qu'on nous dise chaque année budget yu ñuy voté fan la jëm exactement au franc près loolu c'est une exigence populaire tey ah, nit ñi bëgg nañ xam bu dee tey yaa ngi subventionné chaque année gars yi compresse ça mënuñu ko am tey yaa ngi subventionné waaye mënuñoo am ça gan yaa ngi subventionné mënuñoo am euh, euh, nu mu tuddati de l'anesthésie pour opération yu gën a courante yaa ngi subventionné les lampes fentes yu ñuy def ci néonatal mm-hmm. ci chambre néonatale yi mais y' a problème. si je me comprends bien à la base yëf yi départ na mais eggsiwul fi mu war a ñëw. new ma foofu loolu la ñu war a saytu. def na tey la plupart de ces responsables politiques. Mm -hmm. quand ils font leur sortie boo leen laajee koldaa ils te disent que tout va bien c' est faux. c'est pas le tout va mal il faut qu'on le dise les yeux dans les yeux. xam nga tey euh, yomb na trop le président jox leen ay responsabilités. Mhm. ñu war a waxtaanee li jëm ci Kolda waaye positionnement ak guerre. de de de de ni ngay amee post moo leen tax a jóg tey population yi ñu ngi xaar gars yi de pied ferme xam nga waxoon naa leen ko ci législative yi waaye dégluñu ma fii laa toog ci sa ci sa émission ma ne la ñii di jàpp dem di naan président dinañ la defal lii mënal nañ la lii mhm. ils passent rarement voir les populations si ce n'est des échéances électorales ils assistent rarement les populations si ce n'est des périodes électorales et en ce moment-là de plus en plus les populations savent te xam nañu kan mooy kan ak ku mën lan. Mhm. xam nga dafa am loo wax lu am solo nee nga gars yi dañoo nekk ci wàllum positionnement ak li jënd ay wàllum poste yow xëy na nekkoo ci yëfu poste mais aussi on sait que y une rivalité euh, dans dans la région est-ce que aussi yow se voit du ko gis juste comme quelqu'un boo xam ne euh, voilà. il euh, cherche à. man man je cherche rien tout le monde connaît mes relations avec euh, au niveau central ñi ma xamante tey am na li nga xamante ne jàpp naa ni bu ma toogoon ne dañ ma koy jox dañ ma koy jox. Mhm. parce que ko yellool mais